may maître Maimouna xoolal ni ma jekkee ni ma taaroo may maître Maimouna képp kuy jigéen ci àdduna maa la gën a joŋe maître Maimouna manqué wu ma dara lépp lépp côté bu ne laa mëne ah xoolal xoolal sama jëkkër lim def dem jël jigéen joo xamante ni moo raw sax mbalit jigéen ju ñaaw amul classe amul dara góor ñi xamuñu sax lu ñu bëgg eh foofu la sa problème nekk gis nga góor dafa bëgg ku ko respecter surtout nag yow jabaram lu ci ëpp ci góor ñi dañuy dem gis seen jànk yi nga leen di maltraiter pourtant jànk boobu dafa baax dafa fonk ñëpp respecter ñëpp yow nga ñëw di ko manque de respect looloo tax lu ci ëpp ci góor ñi dañuy dem nga ngay gis ñu am alal dañuy dem jël seeni bon takk leen ndax respect boobu ñu am mais yow mi nga xam ne nga jël sa bon def ko mbindaan lu kenn xamul n'importe quoi pour lan xam nga lu ma lay xamal jéema la nga soppeeku nga respecté sa jëkkër ndax góor dafa bëgg ko ko respecté su ko amulee day dem takki xale bu ndaw boo xam ne jànk la te set na baax na respecté nañ ko jàngil respect